andi leen ko tey dañ waxtaan ak moom ci xam-xam dañ waxtaan ak moom ci seet bi bis dañ waxtaan ak moom ci li nga xamante loolu lay liggéey dama koy nuyu Mouhamed Prince jox ko mu nuyoo après ñu continuer waxtaan Prince maa ngi lay nuyu. maa ngi nuyu waa Sénégal yëpp ku nekk an lu mu sant sama nuyu sama sëriñ sëriñ Abou Karim nuyu Moriti yëpp di sama staff mhm. Ismaila Ousmane Sagna Ismaila mhm. Camara mhm. Oto ci marché jeudi di nuyu waa Dakar People. di nuyu mbooloo Ndakaaru yëpp. Mm-hmm. di nuyu Moriti yëpp. di nuyu ñu ma bëgg ak ñu ma bañ asalaamaaleykum waa àdduna. Mm-hmm. Aïcha noonu la nuyoo moom Mouhamed Prince Benzame Aïcha Prince namoon na leen ñu gëj la gis foo nekkoon. ah maa ngi ci sama Maroko de di ko mm-hmm. doomu daan mais xam nga problème bi mooy lu may voyage dafa bëri. depuis temps. Euh, pa bi génne adduna ma doon ci moom. ndeysaan. Euh, ñu def ma roi. comme lu may togg ci Sénégal. Mhm. bëriwul noonu. Mhm. loolu moo tax en plus eh, affaire yi télé dama ko wàññi bu baax. Mhm. parce que dama xam xam-xam. nekku ci télé. d'accord voilà loolu moo tax eh, waa Dakar People gëj ma gis ci écran bi. ayca am na solo macha allah Mouhamed Press eh, dañuy ñëw ci li nga xam mooy sa digganteeg Mouride ndax en même temps déggoon ay jamono fi ñu da nga tuub nekk musulman loolu mën nga ci indi ay leeral. waaw yow xam nga kii euh, la euh, septembre. 3. Mhm. 2019. Mhm. Mhm. dama nekkoon chrétien. Euh, heure man dugg ci réew bi maa ngi presque dix huit ans ci réew bi. dama doon dégg mbiri morit. and musulman. ba sama porte-parole yóbbu ma ci Serigne Aboubakar mu tupp ma nekk musulman mu tudd ma Mouhamed. macha boobu. géej ma Touba. Mhm. sama yoon yëpp dama ko teg cu Touba. loolu moo tax màggal. Mhm. damay def sama participation. Mhm. di ay gileem ay nag en euh, nekk talibé damay def tout diggante man an Serigne Abdou Karim Mbacké dara du ko yàq. Mhm, comme depuis man nekk Mouride ba tey. Mhm. amu dara léegi boo xamante man dina wax loolu yàq la ma sama. diggante moom am murit yi mhm, voilà loolu moo ci am ay ci am na solo depuis loolu nga tuub nekk murit euh, liggéey bi yaa ngi koy doxal comme di sa digganteeg murit yi yaa ngi dem di démarche comme sëñ Abdou Karim des fois yéen a ngi déggante mi ngi lay woo wala oui bien sûr ba euh, la la période temps bi boo xamante doomam Serigne Galass dafa wàññeeku génne àdduna. Mhm. dama woo sembi bi. Mhm. jaala ko bu pare. Mhm. heure boobu dama amoon apaisement loolu mu juma dem parce que dama nekkoon ci yoonu voyage dem Nigéria. Euh, dama ko gérer en tout temps damay déggantaan sëñ sembi damay déggante ñoom Xaadim Ndaw en tout. damay des fois encore damay déggante avec Serigne Moutahar ande ñu ko jege yëpp. Mhm. voilà mhm. damay def tout diggante man am morit yi dara du ko yàq mhm. loolu ma ci am ay ca am na solo Mouhamed Prince ku ne xam ne ne euh, jamono yi Lac de Guiers numéro 2 dañ ko téye à prison depuis lors yi ñu ngi def ay démarches gis nga ne téye nañ ko prison loolu loo ciy wax waa bu ñëw ci mbiri prison lu xew ci destiné nit su yàlla bindre la da nga dugg ci prison ci sa àdduna dara du mënu ko dindi loolu damaa gëm loolu dafa bokk ci mbiri vi euh, la da guerre. d'accord problème bi commencé. Mhm. damaa dem ba ci tribunal. Mhm. Euh, euh, Canada. Uh-huh. waxtaan ci juge bi. Uh-huh. waxtaan ci procureur bi. Mhm. bëggu pour xam la mooy problème bi lan la ñu war a def pour problème bi yëpp jeex. Uh-huh. mais xam nga yoon daal. affaire loo xamante lu dugg ci mbiri yoon kenn mënu ko dara. dëgg man de ñun ñoo bâti cinquante neuf millions. Mhm. CFA. Mhm. affaire voyage la. Mhm. mais man xam na ba keroog ñun ah, Sadio Mané. dafa jokk dix millions. d' and encore avec cotisé yëpp and xaalis boo xamante Bekay Mbaye. dafa indi lu toll vingt cinq millions. waa jeejewaay yëpp gërëm na euh, Bekay Mbaye ci loolu. ndeysaan. après man sant naa euh, ñoo xamante ñoom cotisé na ba ñu am ba trente cinq millions. ba mhm. yóbbante ko ci tribunal. Mhm. mais man xam na du yàgg léegi problème bi ñëw ba ci euh, juge bi. Mhm. man xam na lu mu du yàgg ñu libre euh, Ladege numéro deux. di ko encouragé. su moom génne ci problème bi pour bañ dugaate ci problème bu mel and en plus àdduna moo demee noonu. Euh, nit am problème moo ànd. dëgg la voilà loolu moo ci am. jàpp nga ne balaa mandat bi di mat amaana mën na génn li nga xamante ne mooy prison. waaw su ñëw ci mbiri boobu kenn jokkoo amu ay kii. Mhm. dafa nekk euh, dépôt de mandat rek. d'accord yaay comprend mhm. parce que problème boo xamante mbiri xaalis la. Mhm. andi mbiri yoonu la mhm. il faut yoonu mhm. dañu ko teg foofu pour xaalis bi mootee mhm. léegi bu fay xaalis bi yoonu dina ko libre voilà loolu ma ci am ayca am na solo macha allah ñu dalal ko moom Mouhamed Perez di féticheur bu mag nekk fi nga xamante ne mooy géejawaay di naan ci wàllum li muy def ci wàllum ñaan ak ci wàllum yeneen ak yeneen yoo xam ne mi ngi ko def ayca bu ñu jógee ci lañ ñëw ci lan mooy féticheur lan mooy féticheur waaw wala ñëw nga ci fu foo xamante fu am doole dañoo jakkasi mbiri fétiche and alxuraan hmm. yenn différence avec fétiche and alxuraan hmm. damay expliquer sénégalais yi long hmm. longtemps pour ñoom comprendre sëriñ boo xamante tey dangay tuuru deret randi ginaar mbaam xaar xaaj loo xamante animal la dangay tuuru deret pour faj nit loolu fétiche la mais dafa am tay ñoo xamante ne ñu liggéey ci alxuraan boo xamante dañuy dóob alxuraan mhm. randi par exemple tay nga di da ngay liggéey alxuraan da ngay demande ginaar da ngay demande xaar da ngay mhm. def fétiche dëgg la dëgg-dëgg lu nekk ci alxuraan mooy nga jëre sa wedd di ko wedd mhm. jëre sa euh, par exemple tey su yow gis. Mhm. Euh, photocopie dafa gën a ci tey ci ci alxuraan. nit mhm. bu bëri tey. Mhm. ñu doon ñaan dëgg dëgg ci alxuraan tey. bëri wutu noonu. ñoom dinaa jëre papier bi euh, papier bi photocopie jogal la. di yow def ko parfum bi simila nga xocc ko nga sangu. yow doo gis dara. fétiche. sénégalais dañoo jaawale fétiche and and and formation. ok mooy. nga sacrifier animal. Mhm. def sa liggéeyal parce que tey dañoo sandi nit diw koot. Mhm. liggéey ko. Mhm. tànk bi néew yi. ou bien bopp néew yi jàpp ko. léegi bara nga dindi bopp néew bi. il fo nga sacrifier waati béy boobu boo xamante dañu ko sacrifier pour sandi koot bi. Hmm. loolu kese yow mu nga delloo pour bopp bi deñ hmm? mais su loolu weesoo yow mënoo tay jëre a xoram pro dindi ko mu deñ loolu loolu mënoo nekk. Hmm. loolu moo tax nga dégg nit ñi bu bëri ñoom di man faj na diw fu nekk. dem na sëriñ bu nekk gis ma résultat. Mhm. mooy yow xamagu yoonu bi. ok and sénégalais tey dañoo jaawale fétiche and and formation. Mhm. ñu sacrifier nit nit pour am xaalis loolu mooy formation. mooy formation. mais fétiche mooy sacrifier animal. man xam-xam bu ñu laa liggéey. Hmm. man Mouhamed Prince. parce que ñun Nigéria ñun xamoo la mooy alxuraan. ngeen hmm, xamu leen alxuraan. lu ñu xam mooy fétiche. loolu moo tax. bu ñëw ci làmb fétiche yi kese moo gën a am doole. Hmm. ay politique ay defar bayre protection. Hmm. ubbie ko hmm. laf caat. ndak tey. protection moo takk su nit sandi liggéey du la jot. ok laf caat tey si yow amee galaaj bu tudd laf caat moo tax caat mënu yow dara. mais beneen affaire moo ci am encore caat mënoo denc vie nit. ba ci bàmmeelam parce que première da nga dégg ay eh waaye doom diw bu génne àdduna. xam nga tey ba ba tey eh, caati bi mi ko topp ci bàmmeel. dëgg la dëgg la. loolu moo takk laf caati nekk très important. Mhm. laf caati moo tax caati mënu yoo dara. Mhm. ou bien que moo takk lu yoo dugaloo ko nga am dam. Mhm. protection moo takk ku la liggéey du la jot. xam nga léegi si yoo amee loolu yëpp ci waa baatim. an gaalaat kenn du la mënu dara. am dañ nga avancé. comme fétiche dafa am doole. sénégalais dañu ko woo fétiche mais ñun dañu ko woo xam-xam bu ñuul. ok voilà loolu moo ci am. ok wàllum bi nag. ñan ñoo war a tuur deret waaw tuuru mooy féticheur mooy ku liggéey xam-xam bu ñu moo war a tuuru deret ku mhm. liggéey ak xoraan war a parce que première da ngaa wax da ngay liggéey ak mhm. nga yem ci wedd mhm. nga yem ci pro binde jox nit xocc ko ci nga sango ou bien saraka saraka yana différence avec saraka en sacrifice beaucoup mais tey dañoo jaawale nga dem ci beneen setkat yi setkat bi di yow ah diw dañu koo liggéey de ou mhm. dañu ko dañu laa fay ci baate baatim mhm. ñoom fay naa la sa place yi mhm. da nga doon yéege ba ci kaw ba nga daan ba ci suuf léegi client yi ñëwatu léegi client yi ñëwatu par exemple tey dañoo sacrifier xar pour yàkkal la mais aujourd'hui yow waratu woon dem da ngaa war a dem ci nga dem ci seet bi set setkat bi xam lii fétiche la ñoom def. pour yàkkal la. Uh-huh. comme ci fétiche kese yow mun nga dem dindi ko. Uh-huh. pour sa liggéey doo xaati normal. Uh-huh. loolu mooy différence avec tuuru dërët. ànd ak xuraan bokkoo. fétiche mooy xam bu ñuul loolu kese moo mun na tuuru dërët. Hmm. loolu moo takk ñoom tudd ko fétiche ànd xam bu ñuul. mais ak mooy wedd. Mm, yaa ngi comprendre uh-huh. jarul tuuru dërët. Uh-huh. différence bi c'est clair. Uh-huh. voilà kon des fois nga dégg de dee ñuy def féticheur ñoo mën a fétiche ñoo mën a sànni korte mu gaaw dem directement. non la la lan moo takk tay bu ñëw ci baatim ñoom di féticheur mooy bu neex yàlla bu. naqare yàlla day am wa day am. Mm-hmm. mais ci lu man xam ci baatim. Mm-hmm. dara mënu naqare yàlla. Mm-hmm. dara mënu neex yàlla. yaa ngi léegi fétiche mooy bu la neexee. dina jàpp bu la naqar dina jàpp. loolu moo tax ñu di liggéey jooni jooni la mhm. yéen a différence avec liggéey jooni jooni boo xamante xam-xam bu ñu kese moo mun na ko liggéey mais axoram mënu ko fat-fat ah. nga sandi nga de léegi léegi léegi mhm. man sandi yow boppu mu dara la su ma déggee presse ah xam-xam bu moo gën a gaaw ko alxuraan moo gën a gaaw ah. mhm, moo gën a gën a gaaw alxuraan moo gën a gaaw alxuraan mun na jëre un an ah, mun na jëre six mois mun na jëre deux ans bala mu jàpp mais fétiche day jàpp immédiatement hmm. loolu moo ci am. vite fait day jàpp. vite fait day jàpp. loolu moo tax ñoom di parce que lu tuuru deret. dafa am doole. dafa am plus chance. ci am na solo macha allah ñu dalal ko tey moom Mouhamed Peresse bu ñu jógee ci ci li nga xam mooy wàllum nopp tey boo ñu doon wax tey nopp. Hmm, ci loolu laa gën a am doole. ndax tey yow an sa jëkkër day am problème tout temps tout temps. mais xaaral mu wax yow beneen affaire bu ci nekk ci mbiri problème góor an jigéen. am na jigéen tey boo xamante dañoo bëgg nekk kilifa ci kanam ci kaw seen jëkkëre loolu mënul nekk. mënul nekk de. ndax premier. Mhm. damaa ñëw gisante sa waajuro mhm. ma yóbbu guro. Mhm. ñu dem ci juma. ma indi sama warga. ñoo takk la. indi la sama kere. san dëkki añi reer mi ci sama loko. nga bëgg nga di tey da bëgg dem xew man di yow yow demu. Ah. nga di dinaa dem pa comme tey yow nekk sama kilifa nekkatuma sa kilifa. dëgg la. loolu day yàq sëy. Uh-huh. ànd góor bëggu jigéen pro nekk kilifa ci kanamam. Uh-huh, uh-huh. en tontante. Mm-hmm. mais jigéen bu bëri tey en góor bu bëri tey encore dañoo baadoo. waaw waaw parce que su <laughs> sama entreprise. Mm-hmm. Abou Konatre Ismaila Ousmane Sagna Ismaila mm-hmm. Camara Nabi Dija Oto ci marché jeudi di nuyu waa Dakar People. di nuyu mbooloo Ndakaaru yëpp. di nuyu Moriti yëpp. di nuyu ñu ma bëgg a ñu ma bañ asalaamaaleykum waa àdduna. Mhm. Aïcha noonu la nuyoo moom Mouhamed Prince Benzami Aïcha Prince namoon nañ la ñu gëj la gis foo nekkoon. ah maa ci sa Maroko de di ko mhm. doomu daan mais xam nga problème bi mooy lu may voyage dafa bëri. Mhm. depuis temps. Euh, pa bi génne àdduna. ma doon ci moom. ndeysaan. Euh, ñu def ma roi. comme lu may togg ci Sénégal. bëri wu noonu. loolu moo tax en plus euh, affaire yi télé dama ko wàññi bu baax. parce que dama xam xam-xam. Mhm. ci télé. d'accord voilà loolu moo tax euh, waa Dakar People gëj ma gis ci écran bi. Mhm. Mhm. ayca am na solo macha allah Mouhamed Press euh, dañuy ñëw ci li nga xam mooy sa diggante murid di ndax en même temps déggoon ay jamono fi ñu da nga nekk musulman loolu mën nga ci leeral. waaw yow xam kii euh, la septembre. 3. 2019. dama nekkoon chrétien. Euh, heure man dugg ci réew bi maa ngi presque dix huit ci réew bi. Mhm. dama doon dégg mbiri morit mhm. and musimaan mhm. ba sama patt paro yóbbu ma ci Serigne Aboubacar Mbacké mu tupp ma ma nekk musimaan mu tudd ma Mouhamed macha allah depuis temps boobu Tuuba sama yoon yëpp dama ko teg ci Tuuba loolu moo tax màggal mhm. damay def sama participation di mhm. yóbbante ay giléem ay nag en tout mhm. euh, nekk talibé damay def tu diggante man an Serigne Abdou Karim Mbacké dara du ko yàq comme depuis temps man nekk Mouride ba tey amu dara léegi boo xamante man dina wax loolu yàq la ma sama diggante moom am murit yi loolu moo ci am ay ci am na solo depuis loolu nga tuub nekk Mouride euh, liggéey bi yaa ngi koy doxal comme jig sa digganteeg murid yaa ngi dem di démarche comme sëñ Abdou Karim des fois yéen a ngi déggante mi ngi lay woo wala. bien sûr ba euh, la la période temps bi boo xamante doomam Serigne Galass dafa wàññee ko génne àdduna. Mhm. dama woo sëñ bi. Mhm. jaala ko bu pare. Mhm. heure boobu dama amoon apaisement loolu mu juma dem parce que dama nekkoon ci yoonu voyage dem Nigéria. Euh, dama ko gérer en tout temps damay déggantaan sën bi damay déggante ñoom Hadim Ndaw en tout. Mhm. damay des fois encore damay déggante avec Serigne Moutahar and ñu ko jege yëpp. Mhm. voilà mhm. damay def tout diggante man am moriti dara du ko yàq voilà loolu moo ci am ay ca am na solo Mouhamed Prince ku ne xam ne ne euh, jamono yi Lac de numéro 2 dañ ko téye à prison depuis lors gars yi ñu ngi def ay démarches gis nga ne téye nañ ko prison loolu loo ciy wax waaw bu ñëw ci mbiri prison lu xew ci destiné nit. Mm-hmm. su yàlla bindre la. Mm-hmm. di nga dugg ci prison ci sa àdduna dara du mënu ko dindi. Mm-hmm. loolu dama gëm loolu dafa bokk ci mbiri vi euh, la de guerre. d'accord ndakeeru problème bi commencé. damaa dem ba ci tribunal. Euh, euh, Canada. Uh-huh. waxtaan ci juge bi. Uh-huh. waxtaan ci procureur bi. bëggu pour xam lan mooy problème bi lan la ñu war a def pour problème bi yëpp jeex. mais xam nga yoon daal. Euh, affaire loo xamante lu dugg ci mbiri yoon kenn mënu ko dara. dëgg la. man de ñu ñoo ba ci cinquante neuf millions. Mhm. CFA. Mhm. affaire voyage la. Mhm. mais man xam na ba keroog ñun euh, Sadio Mané. dafa jokk dix millions. d' accord and encore avec cotisé yëpp and xaalis boo xamante Bekay Mbaye. Mm-hmm. dafa indi lu toolu vingt cinq millions. Mm-hmm, mm-hmm. waa Géejawaay yëpp gërëm naa euh, Bécaye Mbaye ci loolu. ndeysaan. après man sant naa euh, ñoo xamante ñoom cotisé na ba ñu am ba trente cinq millions. ba yóbbante ko ci tribunal. mais man xam na du yàgg léegi problème bi ñëw ba ci euh, juge bi. man xam lu mu du yàgg ñu libre euh, Lac de Guiers numéro 2. Mhm. di ko encouragé. Mhm. su moom génn ci problème bi pour bañ a ci problème bu mel mhm. nii. and en plus àdduna moo demee noonu. Euh, nit am problème moo ànd. dëgg la wala loolu moo ci am. kon yow jàpp nga ne balaa mandat bi di mat amaana mën na génn li nga xamante ne mooy prison. waa su ñëw ci boobu kenn jokkoo amu ay kii. dafa nekk euh, dépôt de mandat rek. d'accord. yaay comprend parce mm-hmm. que problème boo xamante mbiri xaalis la mm-hmm. andi mbiri yoonu la mhm. il faut yoonu dañu ko teg foofu pour xaalis bi mootee mhm. léegi bu fay xaalis bi yoonu dina ko libre mhm. voilà loolu ma ci am ayca am na solo macha allah ñu dalal ko moom Mouhamed Perez di féticheur bu mag nekk fi nga xamante ne mooy géejawaay di naan ci wàllum li muy def ci wàllum ñaan ak ci wàllum yeneen ak yeneen yoo xam ne mu ngi koy def ayca bu ñu jógee ci lañ ñëw ci lan mooy féticheur lan mooy féticheur waaw wala ñëw nga ci fu foo xamante fu am doole dañoo jakkasi mbiri fétiche and alxuraan hmm. yenn différence avec fétiche and alxuraan hmm. damay expliquer sénégalais yi long hmm. longtemps pour ñoom comprendre sëriñ boo xamante tey dangay tuuru deret randi ginaar mbaam xaar xaaj loo xamante animal la dangay tuuru deret pour faj nit loolu fétiche la mais dafa am tay ñoo xamante ñu liggéey ci alxuraan boo xamante dañuy dóob alxuraan mhm. randi par exemple tay nga di da ngay liggéey alxuraan da ngay demandé ginaar da ngay demandé xaar da ngay mhm. def fétiche dëgg la dëgg-dëgg lu nekk ci alxuraan mooy nga jëre sa wedd di ko wedd mhm. jëre sa euh, par exemple tey si yow gis. Mhm. Euh, photocopie dafa gonu a ëpp ci tey ci ci alxuraan. nit ñi mhm. bu bëri tey. Mhm. ñu doon ñaan dëgg dëgg ci alxuraan tey. bëri wutu noonu. ñoom dinaa jëre papier bi euh, papier bi photocopie jogal la. di yow def ko parfum bi simila nga xocc ko nga sangu. yow du gis dara. fétiche. sénégalais dañoo jaawale fétiche and and and formation. ok mooy. nga sacrifier animal. Mhm. def sa liggéeyal parce que tey dañoo sandi nit diw koot. Mhm. liggéey ko. Mhm. tànk bi néew yi. ou bien bopp néew yi jàpp ko. léegi bara nga dindi bopp néew bi. il faut nga sacrifier waati béy boobu boo xamante dañu ko sacrifier pour sandi koot bi. Hmm. loolu kese yow mu nga delloo pour bopp bi deñ hmm? mais su loolu weesoo yow mënoo tay jëre ak xoram pro dindi ko mu deñ loolu loolu mënoo nekk. Hmm. loolu moo tax nga dégg nit ñi ñoom di man faj na diw fu nekk. dem na sëriñ bu nekk gis ma résultat. Mhm. mooy yow xamagu yoonu bi. ok and sénégalais tey dañoo jaawale fétiche and and formation. Mhm. ñu sacrifier nit nit pour am loolu mooy formation. mooy formation. mais fétiche mooy sacrifier animal. man xam-xam bu ñu laa liggéey. Hmm. man Mouhamed Prince. parce que ñun Nigéria ñun xamoo la mooy alxuraan. ngeen hmm, xamu leen alxuraan. lu ñu xam mooy fétiche. d'accord loolu moo tax. bu ñëw ci làmb fétiche yi kese moo gën a am dole hmm. ay politique ay defar bayre protection. ubbie hmm. ko hmm. laf caat. ndax tey. protection moo takk su nit sandi liggéey du la jot. ok laf caat tey si yow amee galaaj bu tudd laf caat moo tax caat mënu yow dara. mais beneen affaire moo ci am encore caat mënoo denc vie nit. ba ci bàmmeelam parce que première da nga dégg ay eh waaye doom diw bu génne àdduna. xam nga tey ba ba tey eh, caati bi mi ko topp ci bàmmeel. dëgg la dëgg la. loolu moo tax laf caati nekk très important. Mhm. laf caati moo tax caati mënu yoo dara. Mhm. ou bien que moo tax lu yoo dugaloo ko nga am dam. Mhm. protection moo tax ku la liggéey du la jot. xam nga léegi si yoo amee loolu yëpp ci waa baatim. an gaalaat kenn du la mënu dara. am dañ nga avancé. comme fétiche dafa am doole. sénégalais dañu ko woo fétiche mais ñun dañu ko woo xam-xam bu ñuul. ok voilà loolu moo ci am. ok wàllum bi nag. ñan ñoo war a tuur deret waaw tuuru mooy féticheur mooy ku liggéey xam-xam bu ñu moo war a tuuru deret ku mhm. liggéey ak xoraan war a parce que première da ngaa wax da liggéey ak mhm. nga yem ci wedd mhm. nga yem ci pro binde jox nit xocc ko ci nga sango ou bien saraka saraka yana différence avec saraka en sacrifice beaucoup mais tey dañoo jaawale nga dem ci beneen setkat yi setkat bi di yow ah diw dañu koo liggéey de ou mhm. dañu ko dañu laa fay ci baate baatim mhm. ñoom fay naa la sa place yi mhm. da nga doon yéege ba ci kaw ba nga daan ba ci suuf léegi client yi ñëwatu léegi client yi ñëwatu par exemple tey dañoo sacrifier xar pour yàkkal la mais aujourd'hui yow waratu woon dem da ngaa war a dem ci nga dem ci seet bi ñoom setkat bi xam lii fétiche la ñoom def. Okay. pour yàkkal la. Uh -huh. comme ci fétiche kese yow mun nga dem dindi ko. Uh -huh. pour sa liggéey doo xaate normal. Uh loolu mooy différence avec tuuru deret. and uh-huh. alxuraan bokkoo. Uh-huh. fétiche mooy xam-xam bu ñuu loolu kese moo mun na tuuru deret. Hmm. loolu moo takk ñoom tudd ko fétiche and xam bu ñuul. mais alxuraan mooy wedd. Mm, yaa ngi comprendre uh-huh. jarul tuuru dërët. Uh-huh. différence bi c'est clair. ko uh-huh. kon fois nga dégg ñu de ñuy def féticheur ñoo mën a fétiche ñoo mën a sànni korte mu gaaw dem directement. non lan lan lan moo takk tay bu ñëw ci baatim ñoom di féticheur mooy bu neex yàlla bu. naxar yàlla day am wa day am. Mm-hmm. mais ci lu man xam ci baatim. Mm-hmm. dara mënu naxar yàlla. Mm-hmm. dara mënu neex yàlla. yaa ngi léegi fétiche mooy bu la neexee. dina jàpp bu la naxar dina jàpp. loolu moo tax ñu di liggéey jooni jooni la mhm. yéena différence avec liggéey jooni jooni boo xamante xam-xam bu ñu kese moo mun na ko liggéey mais axoram mënu ko fat-fat ah. nga sandi nga de léegi léegi léegi mhm. man sandi yow boppu mu dara la ko ma déggee presse ah xam bu ñuul moo gën a gaaw ko a gaaw ah. moo gën a gaaw moo gën a gaaw alxuraan moo gën a gaaw alxuraan mun na jëre un an ah, mun na jëre six mois mun na jëre deux ans bala mu jàpp mhm. mais fétiche day jàpp immédiatement hmm. loolu moo ci am. vite fait day jàpp. vite fait day jàpp. Mm-hmm. loolu moo tax ñoom di parce que lu tuuru deret. Mm-hmm. dafa am doole. Mm-hmm. dafa am plus ay ci am na solo macha allah ñu dalal ko tey moom Mouhamed Peresse bu ñu jógee ci lu ñëw ci li nga xam mooy wàllum nopp tey boo ñu doon wax tey nopp. Hmm, ci loolu laa gën a am doole. ndax tey yow an sa jëkkër day am problème tout temps tout mais xaaral mu wax yow beneen affaire bu ci nekk ci mbiri problème góor an jigéen. am na jigéen tey boo xamante dañoo bëgg nekk kilifa ci kanam ci kaw seen jëkkëre loolu mënul nekk. mënul nekk de. ndax premier. Mhm. damaa ñëw gisante sa waajuro mhm. ma yóbbu guro. Mhm. ñu dem ci juma. ma indi sama warga. ñoo takk la. indi la sama kere. san dëkki añi reer mi ci sama loko. nga bëgg nga di tey da bëgg dem xew man di yow yow demu. Ah. nga di dinaa dem pa comme tey yoo yaa nekk sama kilifa nekkatuma sa kilifa. dëgg la. loolu day yàq sëy. Uh-huh. ànd góor bëggu jigéen pro nekk kilifa ci kanamam. Uh-huh, uh-huh. en tontante. Mm-hmm. mais bu bëri tey en góor bu bëri tey encore dañoo baadoo. waaw waaw parce que su yaa yoro soog na. Mm-hmm. yow mënu ko jëndee slip. Mm-hmm. day gis mbaax nga di yoroma xaalis. korite ñëw na mm-hmm. dagal yëri xale yi nga di yoroma mm-hmm. lépp yoroma mm-hmm. da nga dégg ci yoroma yoroma yoroma yoroma yoroma yoroma nga di dagaa takk jabara li nga xam mooy mu ubbi tànkam nga dugg ci mais sa jabar moom moo lijjanti problème am moom moo lijjanti boppam yow laaj ko sa fu muy jëre xaalis sëy boobu doomu su neex dëgg la de ndaw si mun na gis koo xamante daf ko nopp dëgg la mu bëgg tas sëy bi dëgg la de dugg ci beneen sëy bi uh-huh. léegi bu ñoo ci man maanaam sëy dama ko defar mu nekk cocc bu góor bi am bu jigéen bi bëggante mhm. c'est normal mais bu fàtte tey nga liggéey diw ablaay mhm. pour ablaay takk la mhm. sëy boobu su euh, expiré su euh, liggéey boobu expiré sëy boobu danaa yàq mais ku ma jàpp ci mystique ma kenn na ko dara hmm? ndax bëgg c'est pas ci gémme kese dëgg la dëgg la jëfe dëgg la dafa am solo. Mm-hmm. comme noddu sama mm-hmm. noddu dafa am doole. Mm-hmm. su ma la noddu. tëj ko. jogo yow sa sangaat. tuuru yow sa deret. kenn mënatu dugg ci seen diggante. loolu moo ci te yow euh, Mohamed Bensam yow looy liggéey rek deret da ciy bokk. bien sûr yow deret mooy sa mooy sa liggéey quoi. waaw ah parce que loolu moo dafa bokk ci affaire yi xam-xam bu ñu xam-xam bu ñu fa nga tuuru deret. ay ginaar. nag. gileem. Euh, xar. béy. Mm-hmm. ba naat ba mm-hmm. pigeon mm-hmm. ça dépend dafa am liggéey boo xamante si nga ko liggéey bu fi ne nga génn ko ci mbedd bi bàyyi ko mu dem voilà loolu moo ci amee ngay liggéey nit koo xam ne amul njëgu njëgu nag wala amul njëgu xar nu muy demee ah lu nekk ci àdduna dafa am première solution deuxième solution en troisième solution suñu xool première solution yow amu deuxième solution yow amu da nga am troisième solution ñu doo ko mu daan ñu ñëw ci wàllum kayit ku bëgg tukki te ku xam ne jamono ji toj na ñëpp bëgg mais problème këyit la ñuy am non euh, mbir keeti man gën a liggéey mooy ñu nekk bitim réew. boo xamante dañoo am problème pour am keeti. Mhm. ndax am na tey ñoo xamante tey ñoom nekk na vingt ans. Mhm. Espagne mhm. Italie France États-Unis mais ñoom amu keeti. bu ñëw fii dina la defar galaaj avec bayri tubaab. parce que dafa am karo lu ñu liggéey avec karo tubaab. nga liggéey ko bu fini. donne nit. defar ko ci baatim gaalaaju ou bien ci jaaro mu tàkk ou sango su moon den déposé dinaa am dam mm-hmm. loolu c'est premier mm-hmm. deuxièmement mm-hmm. nga ñoo ci ñoo xamante tey ñu nekk bitim réew boo xamante dañoo soxla permis ñoom mënu ko am dama koy liggéeyal da nga ko am par force ci lii ou ci laa bien sûr yéen liggéey bu neexee yàlla bu na yàlla déedéet liggéey ma bu neexee dara mënu neex yàlla dara mënu naxar yàlla mm-hmm. mais yow boo xamante yaa moom liggéey bi bu la neexee mm-hmm. dina ko jàpp mm-hmm. bu la naxar dina ko jàpp mais sénégalais dañu koo jaawal dara mënu neex ya dara dara mënu ëmp yàlla voilà loolu moo ci am comme bu ñoo ci mbiri kayit yi ñu bëgg dem bitim réew dama koy liggéey liggéeyal nga indi demande nga ba soon nga indi sa passeport ma defaroon laa ñaan donné yow euh, sangaate mhm. pour voyage mhm. su yow déposé da nga ko am par force mhm. loolu moo ci am wàllum bayre kuy liggéey euh, bëgg nga ci bayre kuy jaay bëgg nga jaral xam nga bayre dafa bëri façon dafa am bayre bukki bayre bukki dafa am bayre sempo dafa am bayre place. bu ñëw ci loolu. dama koy liggéey ba mu am doole. Hmm? bien sûr. mais boo ñu différence bayre bukki bayre place. bayre bukki mooy bayre boo xamante musicien yi andi mbër yi dañu koo yoro ah. andi aja yi ñoo xamante ñu yoro business bu yaatu. Hmm. bayre place mooy ñu yoro place boo xamante seen affaire yi demoo. Hmm. nga yoro bayre place bu yow da nga def ci sa place am bu yow da nga sango. Ah, ah. client yi da fekk fu yow nekk. dafa am bayri nit. Mm. am na góor yi boo xamante dañuy lijjanti bayri jigéen. waaw pour jigéen ñi di leen topp. pour jigéen di leen topp yoo yoroo xaalis nga nekk di wute mm. ay bayri pour jigéen topp la xanaa yow da ngaa jaru ko de. gis nga jigéen topp la moo ko yoro mm, il faut nga am xaalis. il nga am xaalis dama laa nobb bébé je t'aime je t'aime je t'aime je t'aime xaalis la. sa jabara mënul lekk je Mhm. sa jabar lu mu nobyo nobyo nobyo añu jot moom añu biiram dina metti jetem boobu dina wa dina ko wan dina wàññeeku de comme il faut góor yàlla yi wuti liggéey la mhm. bala nga takk jabar nga xam yow am nga lu yow téye la ko dëgg mu nga yoro soxna mhm. si bii si yow mënu yoro doom jambo bu dem kër bayam an kër ndayam nga dem génne ko ci seen kër nga indi ko di ko torxaan xalaat ci sa première su ci sa bàmmeel mais góor bu bëri an jigéen bu bëri fii Sénégal ñoom ñoom xalaatoo sa seen première jours. ci mhm. seen bàmmeel. Mhm. an ah, loolu mooy yàq Sénégal. ndeysaan 17 millions personnes. Mhm. gën a bëri problème ci Afrique. dëgg la dëgg la mooy Sénégal dëgg la de. loolu moo ci am la demee ñu dalal ko moom Mouhamed Prince euh, Mouhamed euh, bu ñu jógee jëli ñëw ci mooy wàllum néew kàttan et puissance sexuelle. am na góor bu bëri tay boo xamante seen ngóor ngóor bi. salaamaaleykum maaleykum salaam ñoom daan na bu yàgg ba naraw. pare nañ ci ñoom pare nañ ci. jigéen dafa bëgg góor boo xamante. Hmm. dëgëre na kecc. waaw oh. il faut nga deflante avec sa jabara. Hmm. ba mu xam góor yàlla moo ko laar. man am na garab yi boo xamante su ma la ko jokkee nga naan sa affaire yi dina dëgëre kecc and di nga jëre temps. Hmm? mais jigéen. bu bëri tey boo xamante seen jëkkër dañuy doon na ñoom yëpp. Mhm. mais seen problème lu tax ñoom am jëkkër am far mooy. ngóor bi doxoo. Ah, ngóor gee doxul moo tax ñuy am jëkkër am far. am jëkkër am far loolu dafay cotiser trop ça. Mhm. dafay cotiser. Mhm. am jëkkër am far. ndax ngóor bi. jigéen dafa ko soxla. pour mu dox. doom mënoo dugg. sans ngóor bi doxoo. waaw dëgg la de. loolu c'est yow mënoo satisfier sa jabara mhm. sa ngóoru doxoo dëgg la pare yëgg ci kaw sa jabara nga wàcc sa jabara di yow pare nga waaw xam nga yow sa jabara su moom laaj yow pare nga nga xam yow defu fi dara fa uh-huh, uh-huh. mais sama jaranit boo xamante quarante minutes may ci kaw donkaasi gi boobu mhm. dara mënul deñ su ma la nga xam góor yi yàlla moo la mhm, comme affaire yi ngóoru dama koo mën dama koy defar ba defante ba mu neex. Mhm. voilà loolu moo ci am man am na galaaj yi boo xamante su ma la ko jokkoo nga jàpp jigéen. Mhm. moom dinaa xam Bamba Morite la Touba moom dëkk. lu leer laa la wax. looy wax di. barki Serigne Abou Karim Mbacké. ndeysaan. lu leer laa la wax. ndeysaan. Mhm. dëgg la am na solo macha allah ñu ñëw na ci kaaraange. Mouhamed Benzema kaaraange moom jàmbaar nga ci. aar lu gën a am sor mooy samp nit. Hmm. am na combat diggante combat Modou Lo mhm. an euh, euh, boy non du boy ña Ama Baldé Modou Lo takkoo dara hmm. sénégalais wax léegi Modou Lo oustas la dama reetaan samp niit moo gën am doole Modou Lo dafa nekk ci samp hmm? gaalaaji bu daan mbër du dem estal hmm. man du ma takk dara ci sama ndigi yow mënu gis dara dëgg mais lu sama bàyyi samp ci man moo am doole. samp boobu. moo am doole. lu sama bàyyi samp ci man en sëriñ si lu ñoom defu ci man. mu am doole. dëgg la. ndax bala nga nekk roi Nigéria lu toll ay vingt cinq sëriñ ñoom dinaa la samp kenn du la mënu dara sama yaram comme miir la ah. bëggul sandi ma lu la neex ba suba yow mënu ma jàpp ci baatim baatin dafa am dolli. bala nga nekk de wax. am na lu nekk ci sa yaram boo xamante dafa lay protéger de la aar. par exemple tey. su yow samp nit. kenn du ko mënu tuus. ci àdduna. ànd si yow gis mbëri nit bu mel comme balagee moom di yow tuus. tuus boobu mooy yow mënu ko dara. ah bi wax buy wax tuus. mooy ah. moom gëm na lu nekk ci yaram bi. ok loolu mooy. protéger. Mm-hmm. mais bu protéger sa bopp bàyyi sa njaboot. Mm-hmm. ndax tey ku la liggéeyal mënu la jàpp mu jaara ci sa njaboot. Mm-hmm. dëgg la waaw comme ku ja jaara ci sa njaboot jàpp sa njaboot jàpp naa la. na la waaw dëgg la de. man dama dama dama toog douze cin fonde bu tàng jëre mystiquement. Hmm? nga ñam. kenn du la mënu tuus. bala nga jàpp kook may protéger nga jàpp ma. bala nga jàpp ma nga jàpp tuur yi. boo xamante ñoom ma may protéger. kenn mënu jàpp jinne. dëgg la. damay dégg sëriñ bu bëri tey ñoom di sam dama am talibe sëriñ euh, jine mhm. jine mënu nekk talibe kenn ci àdduna non non ndax esprit mënu nekk talibe mhm. esprit mooy par exemple tey lii mhm. lu am deret la ah, lii nii lu am deret la nga jëre ko da ko sacrifier da ko tuuru deret fii ci kaw lii jine yi dinaa commencé di dugg ci biir hmm. parce que am na jine yi tey boo xamante dañuy wëre fu ñoom dinaa dugg dëgg la loolu moo takk gis nga euro bu baaxu ci bu baax bu bon ci àdduna. Mhm. quatorze heures minuit. deux heures du matin. Mhm. ba cinq heures du matin. Mhm. gis nga euh, dix-neuf heures. timis ah. dara xew. ah ñu naan 19h la rab yi di génn nag. dara xewoo rab rab fu mu jaar a génn rab ñaari affaire yi moom def ci vie nit yàq wësëg am mariage. Ah, yàq diine moo am pale chance pro daan nit nga crise dem ci école bu bëri tey da nga gis xale bu bëri mhm. boo xamante ak quatorze heures dañuy daan crise mhm. quatorze heures dañuy daan crise diine mhm. kese moo am doole boobu pour daan nit mu crise loolu moo ci am mais su ma la déggee sànq Modou Lo kon mën nañ jàpp ne féticheur féticheur la mbër bu di yow moom dafa fétiche nga xam kooku de wax ko neex rek mu dafa fi amul mbër. Ah. mbër boobu amu amu mbër bu dul def baatim xam-xam bu ñuul loolu amu ci mbër yi bëree yëpp. amul mbër mais yow si yow defoo xam-xam bu ñuul comme yow duggugu ci baatim. Hmm. loolu amu fenn. Hmm. mais noo gisee Modou Lo ak combat bi mu war a euh, bëre mu ak Siteu noo ko gisee actuellement nii. xam ga combat boobu ba tey dafa sori. waaw ah. and en plus euh, Modou hmm. tey. roi des arènes bi mii ci lokom ba tey. Mhm. gisaguma ko mu génn ci lokom. ah ok gisagoo ko mu génn ci lokom. gisuma mhm. ko mu ko mu génn ci lokom. su moom danaa génn ci lokom du compte moom ànd cité. ah gisaguma ko de. bu dee dina génn ci loxoom. gisuma ko mu génn ci compte diggante moom ànd gisaguma ko. gisagoo ko ba tey da nga jàpp même su bëreeg cité tamit. Euh, du ma jàpp. Uh-huh. lu ci nekk ci baatim laa la wax. ok d'accord. du ma jàpp. d'accord mais lu nekk ci baatim la lay expliquer nii. Mm-hmm. gisuguma roi des arènes bi génne ci loko Modou Lo contre moom ànd si. ak Siteu gisuguma ko. d'accord te ñu dalal ko macha allah Mouhamed euh, Prince Benzema di jàmbaar ci wàllum seetak ak ñaan ak féticheur yi muy def noonu ay ca Mouhamed euh, duñ dem ba ñëw ñibbi nag te waxuñu ci combat bi nga xamante ne jege na diggante Ama Baldé ak Gris Bordeaux pour l'instant lan nga gis. Pape bu ñëw ci combat Ama Baldé Gris Bordeaux. Mhm. presque e, Ama Baldé sa suñu xarit la. Mhm. Ama Baldé sama xarit la. Mhm. waxaguma dara ci komba bi. bu dëgg yàlla. waxaguma dara am ba léegi combat bi xooraguma ko. ah non Ama daf la woowagul. woowaguma. mais am na ñu may déggante. mais ba léegi xooraguma combat bi. mais balaa jour combat bi. Mhm. dinaa leen wax victoire bi fu mu féetee. mais fu mu toll nii encore ci lu may gis ci gis-gis. Mhm. Ama Baldé dafa dafa takaw. na. Mhm, takaw na bu baax sax. Uh-huh. takaw na ci baatim quatre vingt pour cent. Uh-huh. raw na Gris Bordeaux. raw na ko ci dix pour cent. Hmm. mais galaaj dafa war a moto cent pour cent. yow mu nga am lu yo bëgg. ndax première. doole. moo nekk première. Mhm. baatin. Mhm. moo lay jàppale. Mhm. yaa ngi comprendre. dëgg la léegi su bu amee loolu yëpp lépp yoo soxla. da nga ko am. comme fu mu toll nii. bu ñëw ci baatim. Ama Baldé mii ci quatre vingt dix pour cent. waaye eh, kii. Eh, Gris Bordeaux uh-huh. mii ci soixante dix pour uh-huh. comme dañoo rawante. mais baatim mun na changer fii di si suba. ok waaw waaw. voilà loolu moo ci am. Mhm. mais côté côté côté mystique bi pour l'instant nii Ama Baldé Gris Bordeaux kan moo ëpp mystique pour l'instant kan moo gën a taxaw ci mystique. loolu laa lay explique expliqué naa la ko ba de. ci mystiquement. 80 mhm. pour cent. Mhm. Ama moo ëpp. moo ëpp léegi parce que Ama mi ngi ci 80 pour cent. mi ngi ci 70 pour cent. gisoo 10 10. dafa ko ëpp ci baatim. ci 10 pour cent. ay ayca macha allah am na solo bu ñu jógee ci Ama Baldé Gris Bordeaux ñëw ci Balla Gaye numéro 2 ak euh, Tapha Tine ndax ku ne xam ne Balla moom sa xarit la nag Prince bu combat bi toll actuellement ni mbëri jeejewaay yëpp. Mhm. Euh, du ma di Balla kese sama xarit la. Mhm. mbëri jeejewaay yëpp fu tudd mbëri jeejewaay yëpp da nga tudd Mouhamed Prince. dëgg la mais man maa xawal wan mbëri yi. Mhm. ginnaaw. lu tax ndax mbëri yi ay worokaat leen. ay wóorkat lañ. waaw mbëri kay mbëri pro wóor yow loolu du dara ci ñoom lu ñoom xam mooy seen bopp kese. <laughs> yaa ngi comprendre. Uh-huh. loolu du dara ci mbëri yi. Uh-huh. mais loolu mënuma tay uh-huh. ma bàyyi mbëri jéejeewaay yi. bu ñëw ci compte Balla Gaye en Tafatim. lu mu liggéey liggéey ci baatim mënu ëpp Balla Gaye ci baatim. ok. xanaa ñu dem ci doole. waaw côté doole bi. mais encore combat boobu combat risqué la. Mhm. ci tafatim ci tafatim. Mhm. ndax lu muy def loolu degré rëy noonu. Mhm. dafa war a wàññee ko moom mun na am doole. pour jëflante avec euh, Balla Gaye. ndax ci komba bi man gis na man gis na benn euh, adversaire. keneen. mu génne ci géew bi. trois fois. gis nga benn adversaire dàq euh, benn adversaire bi trois fois. ci biir mm. bi combat boobu du yàgg dara. du yàgg du yàgg. Uh-huh. du yàgg mais fu mu ton nii. Uh-huh. bu ñëw ci baatim. Mm-hmm. Balla Gaye ci baatim bu métti métti métti métti bu ñëw ci dolli tafati mii ci bu métti métti métti métti. doole mm-hmm. Balla Gaye moo ëpp ci baatim fuuf. bu dee côté doole. bu ñëw ci côté doole. Mm-hmm. xam nga Balla Gaye du wan lu nekk ci yaram bi. waaw waaw mais dafa wàññee ko lu bëri. Uh-huh. pour moom mun na jëflante avec tafatim. daana na ko la première fois. waaw. bu bu tafatim defoo très attention. Mhm. Balla Gaye dina ko daanaati deuxième fois. da koy deuxième fois. lu leer laa la wax. Ah. mais nag bawol bawol yi pare nañ de prince. waaw bawol bawol na boo fàtte Balla Gaye Balla Gaye waa Casamance la. and en plus ba Balla Gaye waa Jeejewaay la. Mhm. ñu ko jàppale encore ci baatim dafa bëri. Mhm. yaa ngi comprendre. Euh, kii euh, tafatim waa kii la waa. bawal euh, waa bawal. nu mu tudd sax euh, dëkk bi sax seen dëkk bi xaw na fàtte tuuram. Réfan Réfan waa Réfan la. waa Réfan la waaw mais pour moom ëpp ci ba balage ci baatim. Mhm. du yomb. Ah. ndax Balla Gaye borom baatim la. ndeysaan gaala ah, gaalaaji. Ah, mhm. dafa ko soppee ko ci moom. Mhm, mhm. loolu moo ci am. pare nga pour jàpp jàppale Balla Gaye numéro 2 wala woowagu la. Balla Gaye ñoogu. ñoogu man xam na mi France ba léegi. and fo fu mu toll bi. dafa sori ba tey parce na un mois. ñu tabaski ba noppi. tam ba noppi n'est-ce pas. bala ñu dugg ci lamb boobu. mais incha allah dinaa def lépp ma mun ci sama su boo jaroon na pour man dem Nigéria dinaa dem Nigéria. Mhm. pour préparer ci ba bi incha allah. pour mu am ndam. voilà. ayca am na solo bu jugee ci ñëw ci wàllum politique bi noo gisee réew mi jamono ji. waaw rew bi daal. damay ñaan yàlla. andi mhm. sénégalais yi. Mhm. dama ñaan sénégalais yi ci ngir yàlla. pour ñoom jàppale Jomay. waaw Jomay. Jaxar Faye. pour mu pour mu pour moom mun na gérer réew bi. réew bi jakasoon na trop trop trop trop trop. na. xiifu bi tabaski mi noonu lépp dafa cher. Mhm. lépp dafa cher. dëgg la il faut il faut il faut sénégalais jàppale sénégalais dëkk bëgg noon daaw dëkk bi bëgg na xarab defar. waaw oh, de. métti na lool. ndeysaan dafa métti de. Mhm. fu mu toll nii dafa métti maire yi ceeb bi yokku na. waaw bi yokku na. location yi. Mhm. Eh, appartement bëgg na mooy cent cinquante mille. dëgg la dëgg la. mais il faut gouvernement bi il faut état bi def dara. Mhm. jàppale sénégalais yi. Mhm. dund bi ñun bëggu. pour mu wàññee ko location ni wàññee ko dund bi wàññee ko. Mhm. loolu kese ñun soxla. ndeysaan su loolu amee. ñoom dina am ndam. voilà loolu moo ci am. merci beaucoup Prince kontaan nañ ñu ngi lay jaajëfal. maa ngi leen nuyuwaatee waa Dakar People. di nuyuwaatee Sénégal yëpp. ñu ma bëgg ak ñu ma bañ. sama staff di leen nuyu di nuyu sama sëriñ sëriñ Aboukarim Mbacke di nuyu sama sëriñ mu mm-hmm. Mountakha mm-hmm. di ñu waa Moriti yëpp mm-hmm. asalaamaaleykum waa àdduna jërëgën jëf ayca macha allah merci beaucoup Mouhamed euh, Prince Benjamin ñu ngi koy jaajëfal bu baax di ko kontaane tey nag ñu ko fi nga xamante ne muy Géejawaay ndax gëj nañ ko gis loolu namoon nañ ko kenn xamul ci lu mu nekk tey nag comme ni ngeen ñu koy laajee ñu andi leen ko tey yaakaar naa ni waxtaan wax tey waxtaan bu am euh, koy jaajëfal bu baax di ko wax merci beaucoup jërëjëf kontaan nañ euh, ngi lay jaajëfal di am contentement bu yaatu yow dalal la si Dakar People macha allah merci beaucoup kooku jërëjëf Sam laa ci àndaloon moo nekkoon ci caméra waaye ay Aïcha mi ci wet bi saa su nekk ayaa ngeen ci àndala ah, mais dëgër mu soor comme ni ma ko xale di woowee rek ñu ngi jaajëfal ñëpp di kontaan ci ñëpp di wax ba beneen yoon euh, ci beneen émission jërë ngeen jëf